أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقيبط نعول الدنيا نيو بالإسلام بلين سنت بلين قرم دي بكتين بلين لوكيل بلين يانا دي ساكتين نخير انتصير الله ينتهي بجري في دي فندخ دي في تهي دي يصل انتهى القرآن لفني وذكر فإن فذكر نفعت الذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ñu ne xol day xomaag day tilim bu xomaagee aajo nàmm ko bu tilimee ñu war ko fóot ndax xol mooy bérébu xoolu suñ borom ci jaam ñi tax ci la taqwa nekk ragal yàlla lan yanaal allaha luxumuha wala dimaauha walakin yanaaluhu taqwa minkum ne suñu borom ñetti néeg la am ci kaw dënd bi benn bu njëkk bi mooy baytullahi alxaram li ci des bërëb yi mel ni ñu toog nga xam dañ koo jagleel jaamu ko rek te leneen amu ci cër ñetteel bi mooy xol bu gëm xadis bi ne sama asamaan si xajuma ci sama suuf si xajuma ci waaye xaj naa ci xolub jullit bu ma gëm kon xol lu ama am solo la ñi fi suñu borom indi ngir ñuy texeek bindeef yi yépp xol rekk lañu féetewoo cheikhuna cheikh ahmad bamba radiallahu taala anhu suñu borom daf ko am lu mu ko jagleel ci li am solo ci nit mu di xol xam ne li nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala xool na xol yépp yër ko mu gën cee sopp muhammadu rasulullah sallallahu mu tànn ko def ko xaadimu rasulillah alayhi salaatu wasalaam daf ko may xol yi texe ñépp du jeex mukk te lu ñu gën a yéeme moroomam mu waxtaan kon tey ci geneen wet goo xam ne rek gannaaw lu nu jëriñoo rek lanu bëgg moo di sëriñ bi àggee ca dayo ba ba jéggi ko te kenn xamul fu mu yemi li ñuy soxla ci sëriñ lépp muy fii ak ëllëg ak diggante bi di bari sax mu mën ci lu kenn mënul kon wàllam yépp mat lu nag mënuñu koo fay waaye nag bu nu amee ngor lim mën lépp daanu ko def ngir sant ko gannaaw bu nu sant yàlla ak yonent bi ndax Cheikh Ahmadou Bamba dafa bo day njiit ci ñi nga xam ne nu bët bu nekk ak xippi mën nañ caa nemmi ku seen xoli taalibe yépp bu ñu feesoon àdduna it la ko dale ca penku ba ca sowwu xol boo xam ne ak cofee la ma nga ca mbugal du ca dugg merum yàlla du dal ca bopp ba ko sax loolu xam ngeen ko ciy bindam wajhu lazi yuhibbu ni yab yabdu yow ma wujhu suadat ab yabdu te xam ngeen nit dana dund juddu di jaamu yàlla bu dund dund bu yàgg dee dem ca safaan ba ngir ay mbir loolu lépp nag lu ko gën te muy sopp diw rekk ku ko yàlla yombalal yombalal na la yiwu àddina ak wa alaxira waaye nu xam ne sëriñ bi bi ñëwee it fekk diine ji ràpp mu war koo beesal fekk alxuraan tumuraanke mu war koo teral yëkkati ko ba teg ko fa mu war a tegu fekk awliyaaw yi fekk ñu mel ne liir yuy nàmp yoo xam ne gisatuñu seen ndey mu war leen a nàmpal duy leen ba ñu fees yéege leen kenn ku nekkoon am nga sas xam ne koy ko rekk la war muy koo xam ne dafay kaamil dañu alkaamilu man laa yutfiu nuuru maarifatihi nuura wariihi alkaamilu man laa yutfiu nuuru maarifatihi nuura wariihi kaamil tey am sañ-sañ boo xam ne bu ko neexoon mu ne suñ boroom tabaraka wa taala dugalal mbindeef yépp àjjana mu dugal leen ca dugalal mbindeef yépp safara mu dugal leen ca mboolem mbindeef yépp boole leen benn dikk ñu deewandoo ñu def ko ba noppi te loolu du tax mu wàññi dara dara dara dara ca matal xaq sharia eh. ñu seet kummalul awliyaa yi nga xam ne ñoo fi xeet xotti ngir moo xam ne dañ koo jële ci suñu borom tabaraka wa taala mu jaare ci jibril jaar ci muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu boole tërbiya ak tarqiya mu dikk mujj leen mottali leen ni sallallahu alayhi wa sallam mottalee yi ci ci mujj leen mu dal di santaane nag kon ne képp ku ànd ak moom danga war a nekk kaamil ndax danga ko war a doon kon kaamil boobu nga xam ne moo di si Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu képp ko askanoo ci moom war ngaa am yoon war ngaa am loo ko roy te xotti na yoon woo xam ne boo ca jaaree da ngay nekk kaamil ca na mu yàlle ci yow da nekk kaamil ca na mu yow mu ne digal naa képp koo xam ne kii aju nga ci man nga jaamu yàlla ñooñu it buñ jógee ci moom dellu tëralaat ñeneen ñe def yeewee naa la nga wuti feneen foo ko mën a amee képp koo xam ne nag li ma bëgg nga bëgg manam yoon wi ma jaar nga bëgg jaar na nga defaru ta ànd ak man mbooloo mu bari gàddi ko dem jàng booba xamuñu lu dul jàng jàng baax na waaye léeg-léeg nag mu am lu ko gën fekk nag daana gàndeeru te ko xawat daan topp alluwa di defar di defar ba mu jub bu ko jox borom ne ko lii de lu màgg la doomu soxna ji jàng téereb yàlla bi ba wat te moom warlu na bind téere yoo xam ne loolu lépp dana ca nekk sampitaat itam ñu koy jàngale xam na ne xam leen na ne jullit bi lim li ko yàlla sant te mënu koo bañ a def ñu julli woor asaka aj bu ko manee tam war ko boo ko xasee ba xam rek boole nañ la ci borom xam-xam yi jox nañ la ci ngëneel yi nga xam ne borom xam-xam yi am nañ ko li ci des nag maanaam taxasus la ci gën ci géeju ci yeneen xam-xam yi waaye jullit bi moom war naa xam na muy jullee na muy jàppe xam ndox mi jàpp xam na muy woore xam charte yi li koy yàq liñ ci sib lépp yomb na ku ko jàng xam ko te jàng moom du weesu mukk nit ni nit jullik tisbaar boo juumee ba sëlmal ci ñett rakka na koy defare yomb na jullik tàkkusaan bo amé ñaar rakka selmal wala nga dolli ben muy juroom na ngay def lolu yomb na ñu xamal la ko nga daldi am bay xam xam atte julli le bo juumatee man ko defar ndax julli go juum te defarat ko ëppee na daraja julli gi nga juumul juroom ñett yoon juroom ñaar yoon xam le l'islam googu nga xam ci le serigne bi te ko ba fi bu ngeen amee bët te seet di ngeen gis ni ba léegi mu ngi koy def ndax Cheikh Mourtada Mbacke mii ataalallahu umrahu wa nafaana bi dafa ŋàbb tànkam ngir dundal lislaam ngir feeñal lislaam ngir xam xamle lislaam ngir yeesal ko ci xoli jullit ñi rekk ko tax a jóg du toog këram du toog feneen noppaluwul nekk ci liggéey boo xam ne mooy jihaar dëgg fii nu toll fi lu toll amul jenn jihaar ju toll na noonu ndax yàq yàq yu bari na te nit ñi sàggane nañu lislaam mu di ubbi daara yoo xam ne dañ fay jàngale di teew ab teewaayam rek nit ñi di ko xool seeni xol di beesaat mu di leen gën a jëñ ci lislaam kon fab na tànk yi nga xam ne sëñ bi jaaroon na ca radiyallahu anhu murid yi nag bu seetee ne al ulama wa rabbaani yoon yi dañ ne yoon yi jëm ci yàlla mu ngi bare ne nooy bindee fii kon yoon yi jëm jëm ci yàlla bari na lool sallallahu alayhi wa sallam nee na liimaan juróom-ñaar fukki shoxba juróom-ñaar fukki càq la ay car wa kama qaala alayhi salaatu wasalaam bi ci gën a suufe mooy fekk ak dëkk wala doj wu nekk ci yoon yi mën a gaañ nga yëkkati ko randal bi ci gën a kawe mooy xalaat yàlla ci sa biir xol dëgg dëgg ba yëg ko wala jihaar ko kama qaala alayhi salaatu wasalaam bokk na ci bokk ci juróom-ñaar fukki shu'ab yooyu la lépp luy dindi lor ci nit ñi yërmande kon ci la am njëriñ ci nit ñi ndax ku yërëm suñu boroom yërëm la jullit bi na fexe am xolu yërmande bu mu yéene kenn lu bon bu mu fexeel kenn lu bon na fexe ba wattu moroomam ci teew ku fàttaliku bis boobu lépp luñ ne la dana waral jàmm nga am jàmm ci bis boobu danga ko def xol nag ni may waxe woon day tilim ñu war koo fóot xalaat bokk na ci ay póotam suñu borom dafa ne allazina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard rabbana ma xalaqta hada batilan fa faqina azab annar gaa ñi nga xam ne dañuy xalaat seen boroom màgg gi mu màgg sañ-sañ bi mu am kattan gi mu amee boole gi mu boole lépp loo xam ne lii sañ-sañ la walla kàttan la wala man la nga xam ne dara fàdduwul walis ko te mu nekk bil mirsaadi jaam bu nekk mu am fu mu lay nekk te danga fa jaar nga xam ne dana seet sa lépp te bu yërmandeem dikkul dana doy waar nit ki nga xam ne ak dundam ci àdduna lu gàtt la ndax dañuy romb rekk dem sallallahu alayhi wa sallam ko nee ñi soppil la garab yi mu di jur doj yi mu di wurus sa xaalis mu ne lu ma koy doyee maa ngi mel ci àdduna ne tukkikat bu waaxu ba ñaq romb ker garab taxaw fa tuuti ñaqam feri mu jàll noonu la mel ci àdduna noonu la ñu ci desit ñëpp mel ni kon nag lépp loo jëndee ëllëg da nga ko réccu ndax daray àdduna jarul daray àllaaxira dara rey àdduna jarul dara rey àllaaxira te nit ki bu ko wóoroon ne dana dund kat téeméeri at yi wala juróom-ñeent fukki at yi wala juróom-ñett bu jeexee mu dee mu xam ne sax dana dund fii ba booba waaye yow yaa ngi xëy xamuloo da nga fanaan da nga gont da nga yendoom déet yaa ngi gont xamuloo da nga fanaanam déet kon bokk na ci takku fàggu fa nga jëm te loo fa dawalul doo ko fa fekk doomu aadama yi bari na si ñoo xam ne ci bàmmeel di ñeeg fande la ñuy dëkke ak mar bay na mbugal rawatina bu ca yeneen xaq nekkee te xaq yi kat am na ci yoo xam ne jaani ñàngoor lay doon di màtte am na ci yoo xam ne jiit yu fette lay doon am na ci yoo xam ne xali safara lay doon te xaq kat bu doomu aadama doon jihaar ànd ko bu yonent di xeex ak yéefar yi jaay bakkanam yàlla ba ñu rey ko su borom dellu ko dundalaat mu dellu di jihaar ba ñu rey ko ñetti yoon mu dekki du jéggi siraat mukk te fayul bor bor boo amee nit te doog ko te balu la ko moo tax dana rafet dana doon xel nit ki muy def ñaari fu mu jullee ñaanal jullit ñëpp ñaan itam ñaan goo xam ne daf koy jagleel ñi mu ameel i xaq ndax bu ko defee ñoo ñee mu ameel ay xaq ñu mën a fayoo loolu bu fekkee ne li mu ñaan bari na ba ëpp ñi mu amel xàq des wa day dellu ci moom rek kon nag perte wu ci waaye dara gënul metti yomal xiyaam nga taxaw ci kanamu balance yi xusamaaw yi maanaam eh, ñi ñi lay fayu taxaw lu njëkkati ci ne ah man kat defoon na ma wala amel na ma nangam ñu jox ko ba mu jeex tàkk di wa dara li nga amee ñi nga amel des des jeexuñu te doo leen mën a faye lu dul ñu fab fab ci seen bàkkaar lu toll ne la nga leen tooñoon rek teg la dong nga leen di mën a faye su borom tabaraka wa taala nag bari yërmande bari na yërmande lool yërmande it nag dañ koy sàkku dañ koy sabablu ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na yowmal qiyaam da nga gis jaam boo xam ne dafa taxaw ci kanamu balance yi ñu di peese yi jëfam muy fay xusamaa yi di leen fay di leen fay ba jeexal benn waaye ñëw ne ko ah fay ah fe, lay fay man de amatuma dara jàmbane sun borom ki re def ma amel na nangam ak nangam sa waxna ko mu ne duma fay nak jeexal na mu ko ah lum la amel mu ko nangam nangam mu ne ko ah jeexal na lum lay fay ko xam ko de way xana dana ma fay de on nu muy def nak sun borom dal ne jam fayu togal mu tok ci suuf ko xol mu xool mu ne ko loo gis mu ne ko man de li ma gis doy na waar njënd yi ma gis day ñu tabaxe ko wurus ak zabarjad ak yaaquut ak marjaan xaw ma ban yonente ko moom wala ban malaaka waaye doy na ko waar mu ne ko kooku kenn moomagu ko ku ko jënd rek ko moom mu ne ko ah ana ki ko am njëgam mu ne ko yow mii mu ne ko man mii am naa njëgam waaw waaw ah luy njëgam xanaa nga baal sa mbokk mii lim la ameel ah, bu ma ko baalee moom kër gi mu ne ko waaw waaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam ko wax de mu ne ko kon baal naa ko mu ne ko jàppal ci loxom ngeen ànd dem àjjana kooku yërmande sun borom fa àgg yërmande sun borom àgg na ci jaam boo xam ne dafa nekk ci xéewal ga sappu ci miirub la araf bu gàtt boobu nga xam yowmal qiyaam ci la ñuy tër jox yont yàlla yaxya alayhi salaatu wasalaam paaka bu dayna xasab mu rendi ko ci mir bu gatt bobu seen ben way xàmmewu ko sax koko mom xàmmee ko ne ko ey sa way yow way mas mas nga mar bis de rombu sunu keur ma may la ndox nga nan mu setantal ko ne ah wax nga deug de mu ne ko waaw ndax mun lo ma dimbali way mu ne ko nu ma lay dimbali mu ne ko nga waxal ma sa borom rek gannaaw am nga ngërëmam bam duggal la ci teranga ji waxal mako mu jegal ma ci sa barke ah loh leman man wax deug yalla waaye dimbali ma rek ne ah suñu borom kii de mos na ma may ndox fekk ma mar lool moom de dafa bëggoon ah nga baal ko mu ne ko ne ko génn mu génn ñu naq ko ci juróom-ñaar fukki géej yu koy laabal ndax bu demee àjjana xet ga du sonal waa àjjana ñu dugal ko àjjana ñu ne nag kon jëmm ji bu nekkee ci dundam bi salaatu ala nabi wala bis bu ne nga jàng maraaxib jaalibatul maraaxib wala muwaahib muwaahibu naafi wala bokk jëfbul xulub wala genn xasida gu mu doon nga xam ne sëñ Tuubaa ko tagg yonent bi ndax am na njëriñ bari na lool tuyaaba ndax nee na suñu borom nee na ko lu dul alquran ak hadis saw bind ma ko gënal kon nag yaakaar naa ne jàng ko te am na ci xasida yoo xam ne yépp sax ñoddi la jañ la waaye xam nga ni xam ngeen ni mu ko séddalee ak yenn ti xasida yi nga xam ne dañ na nangam la gën a ci la gën a ay bari nañu ci duggee dana yaatu lool waaye jullit bi daal war na farlu ndax bu ëllëgee du bokk ci mu yi maanaam ñi perte ñi desewul dara daal ndax bu ñu dekkee yowmal xiyaam dana am ñoo xam ne dañuy dekkee waajtaay wu gën a rafet dara du manqué te lu gën a rafet moroom ne ci bañ ci la seetaan am ñoo xam ne mbubb ak tubay rek duñ sol daal duñ sol mbaxane ñii dekki tubay kese la ñuy sol seen kol bi ne ci biti <laughs> ñi nga xam ne day dañuy ngemb dañuy ngemb wala ñu sol kiloot ak ah, ñu sol silip ak ñoo xam ne xaw fàlle doo ngay wër seen seen ndiggali ba bëy ak xar yi topp ci ñoom di leen ree day na war de alaxira ah, day bu ko defee am na jikko yoo xam ne keroog lay feeñ ñi nga xam ne seen jikko moo doonoon rëy dañ junni nit nañu bokk benn sëriñ du tax ñu yem de du tax ñu yem de ndax kenn ku nekk ak la ngay jëf fa ngay rawee sa moroom gannaaw wóolu gi moom ni ko sëñ Mourtada Amar waxe léegi wóolu gi moom kenn ku si nekk àgg na ci dayoob wóolu ci sëñ Touba yaakaar naa ne benn murit a gën a gëm sëñ Touba benn murit moom jafe naa xam ndax kenn ku si nekk jaral na la lépp fu ñu ko tuddee jaral na la ñàkk loo amoon kon nag gëm ak sopp gi moom mat na sëkk mu des liggéey bi sëñ bi doyloo wul woon ci taalibe yi ni leen nañ ma sopp rek de ak nañ ma gëm déedéet daf daan santaane farlu waxtu wi mu daan may nit ñi ci waar leen ak yee leen li mu gàtt gàtt dafa amoon loo xam ne waxtu bu jeexee rek loolaay toll ak moom ne ko jeex na day dal di day dagg fa wax jeex fa kàddu ga toll woon fa lay yem daal di ne bërët ne irji'u ila rabbikum dal di ne kàpp bunt jot duñ ko gisati boobu muy génnati farlu googu mu farlu nga xam ne gisatul dara ci àdduna lu dul boroomam murit yi nañ ko jéem a xam ma ne doonte picc mu ñuy wax përintaan ñu ne moo gën a mën a naaw ci picc yi doonte bu dee naaw mellantaan di doxit seenu gaawaay sore ne waaye lu mu sore sore sore na jéem a dox rek kon taalibe bi na jéem a xent xeñtu li sëñ bi daan def rek te di ko liggéeyal nag dégg ngeen noonu mu waxe ni mu seddalee taalibe yi taalibe bi nga xam ne dafa aju ci moom te jaamu yàlla te liggéeyal ko dana dem àjjana bi xayri xisaabin bi xayri xisaabin nag lu mat a seetlu la ndax alxisaabu kat doy na waar moom ndax ram moom dem na ba bunt safara dem na ba biir safara sax ñuqee nit ca safara ca lëgg-lëggi safara fekk ñu ub managa ci moom mbanagi wañax muy wëndeel ni doge yàpp yooyu di wëndeelu ci mbanagu bax ñu seppi ko génne sax ramu àgg na foofa rammu àgg na ci sukuraat sukuraat tàmbali bëgg metti sëriñ bi ñëw fil ko mu dali njaañ njaga ah, nit ki dal di am jàmmam ba ba kanam rot du dajeeg lu dul xel fekk sëriñ ba ca bàmmeel ba mu di ko gàttandu na mu rek yoo xam ne buñ tàllalee jëmee ci bunt bàmmeel rek sëriñ tubaay nangu ci ay ñaari loxoom hmm. bés bu ñuy denc ab néew dëkk ñu ko dencee ba génn bi ñu delloo ci kër ga di waxtaan ñett ñu yëgoowul ku ci nekk ne man daal dama dafa mel ne dama yëg lu gàttandu néew bi bi ñu koy dugal ci bàmmeel ñett ñu ko yëgandoo te bokkuñu kenn ku ñu wax ko kon nag waa Sénégal ñëpp panorama gàmm ndax bëgg rek yomb na ku bëggul nag fan nga teg sa ñàkk bëgg googu dana jafee xam ndax sëñ tubaa ku gëmul woon wilaaya gi sax te xam ak farloom ak bëgg yàllaam ak xam xam mag jaamu yàllaam lépp a mat rek boo di jullit da ko bëgg fa bëgg yam dafa jóg lépp mat lu ko sëñ Moussa Ka waxeeti ba ne xaw ma ne dëddoom nga ak maandoom nga ba jaaw ba yokk ko xam nga benn bi ne xaw ma lan xam ba yokk ko wane ne lépp matandoo kon amul loo xam ne li at yaa ko ca dolli du ca ragal yàlla ga du ca jub ga du ca farlu ga du ca maandu ga du ca lenn lenn loo xam ne xam-xam bee ko ci yokk wala at yi mu ama ko ci yokk amul kon jullit yi xol bi yërmande nekk faw yërmande yàlla tabbi ca kon yërmande baax na kenn ku nekk na yëre na yërëm lépp luy dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko nee ndax yërmande ñuy ndax picc sax dañ mu ne waaw waaw fi kulli zi kabidin ratbi rahmatun bépp borom res wu tooy rek mën nañ koo yërëm ku ko yërëm yàlla yërëm la mun rahima rahman wala dabihata dana am jikko ju rafet ne yomal xiyam jikko ju rafet la ñu jikka teg ci bàmmeel ci ci balaas yi di ko di te dara gënu la dis gënu ko dis lu alhamdullilah kon jikko ji rafet matna sakku gannaaw yéefar bi sax dana am jikko yo xam dana tax duñ ko lak man nañ ko mbugal waye du dem mukk safara kon nak julit bu ko melawoo dana bax jikko ji rafet bax na do ma dama nak du juddu mak lu ci bari xamee ne boo xamee wi diko door ci dàttu garab gi waxtu dalé rek amna lu dagg noonu la tur yàlla mel ci xol boo ko teewloo waxtu wu dalee rek am na lu tirim ju mu dindi dana dem nag ba setal xol bi bu xol bi setee mu tàmbali dugg ci cër yi di soppi cër yi cër yi yaru bu demee ba xam ne cër yëpp yaru na bu delluwaatee ci xol nag léegi day duy day duy leer yàlla ba mu fees daan waxtaane tuuti ci xoqa li ci sëñ bi wax ci wet googule kon bari njariñ ci jullit ñi baax na lool dana xet li nit fekk ñaari jullit ñoo xam ne ñu nga fexe ba jubale leen kenn xamul tuyaaba am na mu toll nit ki yéene boppam yéene jullit ñépp li mu boppam moom lañ santaane naka noonu toroxlu ndax toroxlu day dindi rëy rëykat moo alagoon iblis ndax bi mu ne xalaq ana xayru minhu xalaqtani min naar wa xalaqtahu min tinin reuy gogo ko alak reuy nak neñu yalla rek ko jago tak ko ci fekk mu lak la dafa amoon ben wali boo xam fay dox ci yoon wu sew wo xamne ne rek ben ak ak ak ndox nga xamne bo jadde rek sa tank bi dugg ci bir ban bi sa yére yakku muy dox ba dajje ben xaj rek dal di jadd ci ban bi xaj bi jall mu sokata taalib yi topon ci ne ko yow nak dal señ bi ya doy war xaj bi rek nga xamne xamul dara mom muy ja tax la jadd rek ba taq nii ci ban bi mu ne xaj bi de moom a gën fuuf mu doon da nga yàlla bis penc ba mu ne la lii yaa ko tooñoon baal naa la ko wala topp naa ko lii yaa ko jaamu woon nangu naa ko wala gàntu naa ko ba mu des Yaxya ibnu Zakariya kon nag doy waar a ngoog kon gannaaw jaam bu nekk am nga ëllëg mu ñu laaj xol ba ñu fekk rëy day yërmande dina ca jafe dugg waaye fegu itam fekk say cër bokk na ci lii maye leer lii tax a fees ak dëddu àdduna dëddu nag tekkiwul bañ a fàggu de wa alam bi anna al kasba laa yunaafi tawakkulan la la takku za itlaafi la si ahmadou bamba radiallahu taala anhu wax xasbuka min tawakkulin allaa tara mujree risqika siwa rabbil wara doy na ci dëddu ak wàkkiilu nga xam ne rek yàlla doo nga lay wërsëgal da nga sàkku sabab yi nag nangam ji nii la ñuy sababloo ngay sabablu bo sabab loo it booy sabab lu nga am yene jaamu yalla ndax ki nga xamne ne mu ngi liggey lu mu dundale njabotam mo ki jihaar ñooyam tuyaba kep waye nak yene ci la nit ñi rawante ndax am na jam jaam ah, yàlla yoo xam ne farlu nañu ba amuñu jëfi aada manam buñuy lek dañuy yene buñuy bunyi naan am nañu yene buñuy tok am nañu yene buñuy nelaw am nañu yene yéene jooju ñu yene nak ci jaamu yalla Ben da ngay noppal jëm ji ngir mu amum noflaay bu bu jógee mën a def li ko war nga yéene ko tëdd nelaw yaa ngi jaamu yàlla ngay lekk si yéene dundal jëmm ji nga xam ne jaamu bi yàlla dafa war a jaamu ngay lekk am yéene jooju yaa ngi jaamu yàlla lépp looy def noonu fekkee ne xëy nga ne képp koo xam ne defal naa la dara muy njëriñ ma tey ko wala teyuma ko ma xam ko wala xaw ma ko def naa ko ngir fas naa yéene loolu lépp def ko ngir yàlla ba nga juddoo ba nga ba ngay xëyee yeewoo ci sa lal ba ba ngay nelaw yépp yaa ngi jaamu yàlla kon nag yéene rek moo am solo innamal a'maalu binniyaati waaw booy jëfal sa àddina ni jëf ba mel ne doo dee mukk te nga jëfal àllaaxira ba mel ne dañ ne la suba ngay dee ñaar yooyu na koy boole jëfal àdduna ba mel ne doo dee mukk jubluwuñ ci nga jëf ngir jëriñoo ngir bànneexoo ngir denc nan nangam am naa ko déedéet waxuñ ci jublu jëf yi ngay jëf bul ne sax danaa ko fekkee duma ko fekkee jëmbatal sax bu ñaari waxtu desoon ci adduna sax nga yor garab na nga ko jëmbat ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne kenn ci yéen bu yoroon bantu euh, caru tàndarma bu mu war a jëmbat saa di taxaw it bala na fexe ba ba saa di taxaw mu jëmbat ko maanaam dañu ne kooku li mu na mu mooy taamiru dunia li iradatil axirati da ngay liggéey adduna ngir namm ci àllaaxira sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha am na benn bis mu jot ci alal loo xam ne buñ ko doon seet ci sunu alal yi ëpp na mille francs mu di ko joxe joxe ko joxe ko ba reer jot mu reere ruy ba mbindaanam ne ko li nga sedd lépp tey ci alal ma mënoon nga ciy jënd genn wàllu libaru yàpp waa lekk mu ne ko ah sama xel di mu ci boo ma ko waxoon ma def ko nga xam ne Abdurahmaan ibnu Awf radiallahu taala anhu te bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neen raaytu Abdurahmaan ibnu Awf yadxulul jannata habwan gis naa Abdurahmaan ibnu Awf muy raam di dugg àjjana te borom xam-xam yi firee ko ne gannaaw moom dafa bari woon alal lool te alal mooy shaqiqu ruux xol mooy palaasam xolay bëgg alal ragal yàlla itam palaasam mooy xol xam ngeen ne ñaari nit bu ñuy xëccoo dara ci ëpp doole mooy yóbbaale waaye nag bu fekkee ne tuuti la ko ëppee doole yóbbu gi mu ko yóbbu dana dana yéex mu ne nag Abdurahmaan ibn Awf dafa bari woon alal lool te alal neex mu ragal itam yàlla lool waaye ragal yàlla gee ëpp doole alal ji ragal yàlla gi nag di ko xëcc jëmee ci yàlla waaye gannaaw alal ji diis na moo tax mu mel ne kuy raam ci biir tekk mooy nanu xam ne rek bu nu ci wékk sunu dara ndax nit ki nga xam ne amul dara te am nëbët yu bari fu mu toll ala lay nekk ci boppam am mil fukki million am milliard am junni million moo moo moo ne ci boppam dañ koy xisaab ne borom alal ji ki nga xam ne itam am na alal ji fees adduna waaye defu ko ci xolam saxul ci xolam yàlla la saxal ci xolam xam ne rek lii ci loxoom la nekk kooku boo demee du am xisaab bu deewee moo tax gaa ñu baax ni di di ñaane ne allahuma inzi dunia min qalbi wala tanzihu min yadi wala tanziha min yadi suñu borom na nga génne adduna ci sama xol waaye bu ko génne ci sama loxo ndax boo amee euh, adduna ci sa loxo da ci mën a jëf lu baax ni Sidna Ousmane defoon Sidna Ousmane moo gasoon biiru ruumata xam ngeen ne lim ci am ci tuyaaba kenn xamul nu mu toll bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ana ku yokk suñu jàkka ji ma warlu kër ci àjjana Sidna Ousmane a ko def xam ngeen jaysul usrati Sidna Ousmane a ko def te loolu lépp alal ji bari te def ko ci yoonu yàlla moo tax ba bu ñu bu yonent bi sallallahu alayhi bu ñuy lim jullit ñi bu ñu nee ñaar ñetteele ko waaye mébét mu gudd moom dana waral ak waru dama day jullit day gàttal mébétam te xam ne rek na sabab lu rek waaye bu mu guddal mébétam lu jot yàlla def ndax li muy yóotu xamul moo gën ci moom xamul gënul ci moom hmm. ak mbañe itam bokk na ci li bon bëggante seen lañ santaane rawatina jullit ñi rawatina taalibe yi ci biir jullit ñi ndax li ñu bokk day lu kenn amul kon war nañoo boole seen bopp benn kenn ku nekk sa bopp daanaka xaw na laa war a gën sa morom ñi xam ne eh, sallallahu alayhi noonu la defoon sahaaba yi ba kenn ku ci nekk mel na sa moroom nga gën a yërëm ci sa bopp xam ngeen xisa boobu bopp gëléem boobu eh, ñu wàjjoon te yónnee ko eh, benn faqir ci sahaaba yi mu daal di xalaat ni xiif naa lool yàpp yu neex na waaye diw daal defe naa moom ko gën a aajoo daal ko koy yónnee kooko it yónnee moom itam daal di koy yónnee keneen moom it kooko yónnee ba mu dellu si ki ñu ko a jox xam ngeen ne yërmande ak bëggante ak yéeneente jàmm foofu la nekk mu ne day saaba yi ñooy bàyyi euh, murit kon nag war nañu leen roy sëñ Tuubaa ko wax jullit bi na fexe ba du lekk lu dul lu teey mooy lu lu lew ba mu sol lu dul lu teey bu mu tëdd fu dul bu mu dëkk lu dul ndax dañ koy laaj ëllëg bu mu war lu dul lu teey te mu xam ne rek